foofu Amet Lac Rose la koy boole ak doomu jàmm gën Franc mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xay saara mbokk yi ama bu yaraax ak gorofil sëy jàmbaar na fa jàkkaarloo ak joona bi sentel junior jàkkaarloo fa ak ndukuman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba ibulaay nee na momo ngom mbayang lum nabu yaa daan ak waa kër pap sek invité d'honneur mu ne mu du xarañ Lo le roi des arènes Franc Goro Sok Talfa Dam Sen guy gi gargadeur sponsor leader yëpp mu ne ETDR bu King Boisson Tampico entrée supporter Ibulaay ne 2000 francs amateur loge officielle 10 ci Ibulaay production xale yi mu tëgg rek nar a téye ji làmb ëllëg ay eh, ca Malick ba léegi nekk ah, ñu ngi fii Colobane rek fekk fi nag double moteur waaye nag dañ ko fekk mu ànd xaritam doom ndeyam ñoom ñaara ànd nag si moto bi ah xam naa daal ñu ngi lijjante seen i business seen i parcours ah la nag ndaa naan la ñu naan ko bente ñe bu faas mbapat bi moom béy na ci waaram waaye yaakaar ne arène nationale bi aussi wala a bëri dóor bi aussi mu ngi ci di béy waaram bu baax a baax a baax a baax bi mujj sax gis ngeen exploit bi mu def fële ci arène nationale waaye dañ koy nuyu rek ziare ko bëgg ko bàyyi la ah da loolu bëgg aouzu billah bisimilah yi na waan yàlla jo jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëf nuyu bu baax a baax di nuyu wàllu TV ci loo ne ah maa ngi si jàmm bu baax a baax kay gis naa la ngay soxla lu xew waaw dama gaañ si tànk bilaay antama laa gaañoon bilaay entraînement bi laay am lu ma jam rek. si lan nga nekk jamono jii nii yaa ngi yaa ngi toog instant ba yaa ngi entraîné wala. mais instant moom maa ngi maintien quoi mais ma entraîné sama tànk day métti. waaw instant que damay ñaan yàlla tànk ma nekkaat si activité yi quoi. dañu daan gis aussi ngay wàcc si bi waaye da nga a raar. non dinaa wàccaat daal lu ma teewoon daal dinaa wàccaat. waaw ma ko bàyyi xale laa bu ma wàccaat si mbapat yi. jaante ko ak gars yi. ko ak gars ba bilaahi. yaa si ñaata combat arène. arène naa si quatre combat. Hmm. trois trois victoire benn défaite. ñu gis sa combat bu mujj digga sa diggante loolu ak usine bu nangal ma mu ñëw andi poids andi doole nga bëree loog bëreek moom xeexaak moom keroog vraiment euh, ñëpp apprécié. usine waaw usine champion la daa daa daa dëggal xale bu nekk si yoon rek moom moom képp bu nekk képp mu avancé sama yoon moom dama lay dama lay daan moom bu sonn mm-hmm. te maa usine 18 secondes yu bëri 18 secondes. waaw combat bu gaaw neex. combat bu gaaw te neex waaw 18 maa moom. Mm-hmm. kan nga bëgg a bëreel jamono ji wala est-ce que instant yëpp lamb yëpp yëpp wax nañ ko. Ah. sama combat ma fi lamb. fi ma ci instant dafa dara suñu lamb. maa moom nay mais mais bu ma sensé. Ah, maa lamb la maa fi sa mas yoonu bëre wala birigal bu yoof waaw maa ñooñu nooy lamb. fii sa pata la de ponkal la comme yow de kooku loolu du yomb de. lamb la. Ah. lamb jàng la de. lamb Lamine Bawar. lamb amul lu yomb. lamb wala métti. man jàmm gën ñooñu ñëpp maa leen mun. fii ma ñu génn dañuy avance ñu bëre. ma la benn ñëw bu faas maa yow maa leen lamb jël wala rajo bu géej waaye ñëpp ñoo bëree ñoom man. waaw ñoom tamit de moom say adversaire mais fii sa mag si jamono ji génne mer la fanaanoo de ci defet la jóge de. waaye loolu loo gën a loo ko gën a mer bi bi xam ne noo ko gën a soo jëlee avance dina xam ne dëgg la. tarkindaa bu ñuul la. waaw man doomu Fass laa nag dëgg ñu la sa kiri bi. Hmm. waaw benn la benn ñëw mooy nii benn la si Fass. ak Serigne Touba fii a mas bi si avance naa ko duma naa ko daan hmm. instant yii permas bu permas bëgg na combat bi. permas bëgg na ko. barki Alaaji Fallou. billaa walaay permas bëgg na combat bi ndax sama sama boy bi waxoon na ko ko. Mm. LP Evans. waxoon na ko combat bi dañuy fii sa mas mu ne ma bëgg naa ko. instant mm. yii permas du nangoo tëgg ko promoteur yi nañ tëgg. la yoonu lamb la. bu neex tëgg grand combat wala spécial. di ko journée bu baax. ak Serigne Touba. billaay bu ñu jógee ci de Max nga Lat Dior nga bëgg a bëri waay. waaw. Dugar Paul ñeme na tugal ñeme naax waaye la joor laa bëgg biral géej waaye la joor hmm. parce que tuba la joor wala fisa mas moom hmm. waaw maa ñoon moom yooyu bëre quoi wala birgal bu yoof waaw ñetti yooyu moom moo tam adversaire potentiel hmm. ñoo ñett ñoo déwén ma fi mu bëri si kenn moom la Serigne Touba waaw te ñoom ñëpp bëgg naa bëri ñoom déwén si benn journée si benn si benn si benn saison la ah. Serigne Touba non ay xale neen état dafa jot làmb xam nu xam nu mënoo jaxase morom fii mbër boo gis nga may chance amul benn mbër bu yëg si kaw te may lu ko loxo ndax doo ni làmb la ni may bëre sa rakk bëre sa na bëre say morom waaw instant maa fi sa mas champion la quoi naanaan la te ni doo bay doon champion fi na daan naanaan dend te day xeex day bëre te man ma bëgguma làmb yomb man ma bëgg xam ne kii day rey bënd ñee wala laa bëgg te maa lu bëre barke alxuraan kër dina ko combat bi na ma rëkkale moom mbër bu mënta bëre du ma la reculer ndax wóolu naa sama bëre wóolu naa sama xeex damay bëre damay xeex billaay wallaay. Fass nag ñu gis ne temps yi moom neex la woo leen wala xam mu demee noonu Lac Rose gis nañ si blessure bi mu jógee ñëw contre ku wen si ñàkk Gris Bordeaux waajaloon combat jóge si défaite moom tam am blessure gis nañ sax démb per Abbas Ndoye ah daal di wax Fass jamono jii ni muy doxee nii tey ah par rapport ak Fass fi mu nekkoon nekk kanam a kanam dafa mel ni temps yi moom neex la woo leen. ah Fass ah, gis na rek xam naa moom moom moo dëkk nii quoi làmb moom day xëy wasin te Lagros champion la xam na trop trop mënu ñàkk quoi te blessure day wàññi nit loolu moo tax quoi Gris Bordeaux sentiment la gaañoo quoi suñu grand bu baax la ñu koy ñaan yàlla yàlla may wër rek mu nekkaat si entraînement yi waajal combat mi Lagros am na combat moom fils de Balla di koy ndam rek na gën a yokk entraînement yi xam na blessure moom dafa garaaw quoi day wàññi day wàññi mbër du bëri. mais fils de Balla fils de Balla bi mu jël tamit est waroon na fa dugg. ah lamb la rek. ana lamb moom nit moom lamb moom lépp gëm-gëm la rek. amaana moom am na gëm-gëm day daan Fils de Balla moo bu jël ko moom moom lu ma koy ñaan moom mooy na entraîné rek li koy doole bu bëri ndax làmb moom day ñëw SS moom il faut na am forme quoi da si baax quoi na mbër sax da nga doon màgg si làmb na chaque làmb nga doon am changement lu mooy lu mooy lu ma tax ni day la ku dul entraîné mënoo daan mbër fii bu kenn neexal sa moom man du ma entraîné du ma daan mbër ndax mënoo toog nii nee na yaa mënoo toog di bëgg daan sa morom mi entraîné matin soir mënul nekk mbër da nga lay yow di entraîné matin midi soir comme gars comme gars yi xëy borom bureau di xëy dem seen bureau ñu mo loolu mooy suñu bureau yeew taxasul daal fajar dem entraîné di ay mbir dana am saal mbër moom loolu mooy loolu mooy entraînement loolu moom mu koy naan na ne mun mm, na entraînement këram wala di entraînement feneen waaye de entraînement si écrit bi daal moom dafa mel ni daal loolu bokk na ci li ko gënal te loolu aussi bokk na sax ci li ko war a mën a def mbër dëggantaan jamono ji. waaw dëgg mbër moom mbër moom da am écrit ndax mënoo mënoo wax équipe bi laa nekk te doo doo entraînement mënu nekk entraînement maanaam soo bëggee entraînement individuel matin muy fii waaw fajar muy fii ba midi ngoon benn deux temps yàggul na may ko coach bi na ñëw entraîné mu gis la maanaam tey coach doo gisul du mun gis mu gis sa sa sa forme tey pekkat yi suñu papa la ma mbër mënu ko jaaxal nag yor na fi roi des arènes Yaxya Diop Yékini waaw moom moom moom ku ko déggal ak ñu doon champion quoi te fan wër gi yaram ndax man lii ma maa ngi ñu ay xale neen ñu écrit fa boo ngay dem entraînement mm. ay Serigne Ndiaye do ñun rek noo fi nekk ndax tey nii moo amee écrit dèjà écrit fa moo fi nekk dama entraîné chaque jour boo ko tey bu ñu naxante ma mënu ma ñëw mais écrit face laa nekk te kenn mu gis entraînement loolu du yoon te bëgg jëfoo combat loolu du yoon ne sa su su fu mu lay gis mu gis ay fomm mu xam booy muy entraîné waa entraîné wul mm-hmm. waaw benn deux temps yàggul quoi loolu li nga ko may kosu bi quoi te ñoom ñàkkunu moyen boobu ñoom mën neen sacrifier ñëpp tey doo bëggee bàyyi am combat bu ko entraîné day métti nga doole mënoo ko liggéey si ay ay deux ay trois mois nit mbër chaque na nga leen entraîné chaque doo entraîné nu la na na génn wala am blessure jaar wala gàllankoor na beneen entraîné waaw ki bu kii mbër dëgg dëgg dëgg chaque jour chaque jour da nga leen entraîné chaque jour da nga leen entraîné combat lamb day pété quoi da ngay jékki-jékki ne sa na te bu doo entraîné woo beneen trois a sugee te nekk si te nekk si fomm da nga xaw a maintien rek nga xam ne sama fomm maa maa doon entraîné chaque jour tey ba ma bëri usine nangama demee na ma ko santiroon maa doon entraîné chaque jour chaque jour ma doon entraîné chaque jour chaque jour dama xëy rek ñu sa combat taxaw na yaa usine bu nangal ma mm-hmm. xool combat côté classe de côté bu bëri rek xam naa ñàkkuma doole mm-hmm. am na solo maa ngi lay bëggee waaw da lay bëggee amoon loo ci bëggoon yokk rek waaw di sant ñëpp rek di sant waa Fass di ñaanal si dëpp anti day bëri dimanche doomu Fass la di ko ñaan yàlla ko yàlla may ndam fi sa Sidy Anti waaw suñu champion la quoi suñu boy la suñu lépp la ba Serigne Touba di féliciter plateau yow ndam yàlla na ko jëg quoi yow waa Fass dimanche am nañ bis quoi waaw na nga yëpp waajal na doomu Fass yëpp génn dem sobate Sidy Anti na doomu gox bi la quoi doomu Fass la waaw moom ni ko yëpp génn sobate ko di ñaanal Modou Yacine quoi la bokk écrit day bëre dimanche di ko ñaan yàlla ko yàlla may ndam si bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi bu baax baax waaw li moom yàlla doon télé quoi yéen moom ay borom baax neen jàmm si yéen rek mbokki Sénégal le 27 août ca arène nationale du yéen ko doon laaj yegsi na Ibulaay production moo woote bés bu mag mbokki Youssou Ndour moo fay bëre doomu père Balla bu école de lutte Balla ak Mor Kankang borom kelemale feccal kelemale ndaat saay combat boobu nag mbokk yi la Ibulaay production jël daal di koy tuddee Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse et de l'emploi combat spécial bi war a dox ci diggante Anaconda ak alliance Birom drapeau foofu Amet Lagros la jël daal di koy boole ak doomu jàmm gën Franc mbër mu jox ko réparé ci kiri caacoo ak xay saara mbokk yi bu yaraax ak gorofil sëy jàmbaar dina fa jàkkaarloo ak joona bi sentel junior jàkkaarloo fa ak ndukuman njaga oro numéro 2 ak petit zé petit laay jàkkaarloo fa ak boy radiateur animation ba ibulaay nee na momoo ngom mbayang lum nabu yaa daan ak waa kër Pape Seck yi invité mu ne Modou xarañ Lo le roi des arènes Franc Goro Sok Talfa Damsen guy gi gargadeur sponsor leader yëpp mu ne ETDR bu Kanji production Lutte TV King Boisson Tampico entrée supporter Iboulaye ne francs amateur francs loge officielle 10 000 francs ci production xale yi mu tëgg rek na